benn da caa dolli lu ca bokkut wala mu wàññi ca loo xam ne bu ca jógee yëf ya soppeeku te ba mu koy def nag moo ko jublu moo ko tey moo jubloo soppi li am dëgg-dëgg jottali ko ca na nga xamee ne noonu la ko bëggee moom ngir am soxla suñ sa bëgg suñ sa bëgg faj euh, kon am na ñu ko ñu ko ñu ko firee noonu wax lu amut loo xam ne yaa ko sos wala lu lu am nga dàq ko wala nett li sax li am waaye ci am boo xam ne gii dafay wuute ak na mu amee ci dolli wala wàññi te boole ci nag jublu ko bu wér a wér a wér ngir am soxla soo ci bëgg faj am na kenn ci borom xam-xam ku wax ne nar mooy wax lu bokkut li am moo xam yaa ko tey moo xam dangaa juum moo xam lu weesu la moo xam lu ñëwagut la mën naa nekk tamit ci li teew nga xam ne kon saa boo xamee ne rek wax nett li am na bu bokkut mbir mi na mu demee loola moom nar la koy tuddee su ko defee nag su fekkee ne tayeef la loola mooy jur bàkkaar su fekkee nekkul tayef nag mën naa bañ a mën na su ko caa bañ a bindal bàkkaar waaye lu mu ci mën di doon moom nar la koy tudde am na keneen koo xam ne kii dafa wax ne moom nar daal euh, xam ne fekkee woo ba gisoo ko sa bët ko ak sa nopp ci jamono ya muy am te ku wër ku wóor nettali wu la wax lu amul nee na mooy nent loo xam ne fekkee woo ba muy am gisoo ko ci tegoo ci sa bët déggee woo ko ak sa nopp ci waxtu wa muy am wala fa mu amee te ku ko fekkee mbaa ku ko dégg ku wér te wóor nett li ko mu dëppoo ak xadis bi nga xam ne moom la yonent bi ne doy na sëkk nit ki lépp lu mu dégg rek mu nettali ko lépp loo dégg nettali ko loola euh, nar lañ koy dañ koy boole ci nar ndax du luñ dégg lu nekk rek lu wér la te yi wér yépp sax nag am na ci yooyu jër ta nett bi Cheikh Xadim radiallahu anhu bi muy jàngale lan mooy nar boo demee ca aljawharu nafis ma ngay wax ni xaqiqatu lkadibi ixbaaru kama lam yaku thabitan bi qawli l ulama nar daal mooy nettali loo xam ne saxul ci ni ko borom xam-xam yi jàngale mu am nag ay tur yoo xam ne ay baat yoo xam ne benn bu ci nekk day wane ñàkk dëggu waaye nag seeni maanaam wuute na donte ne yépp léeg des na ko firee des na ko firee ñàkk dëggu am na lu ñu tuddee alxarsu xarasa yaxrusu xarsan loolu des na ko fi ree waaye euh, day mel ni buñ ko xoolee ba ca biir mooy wax lu la wóorut wax lu la wóorut demalee ka fekkale in yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yaxrusun am na lu ñu tuddee al al mooy euh, sos sosal nit ki loo xam ne neexu ko sosal nit ki loo xam ne neexu ko nga xam ne su fekkee ne nit ki da nga koo waxal da nga koo sosal loo xam ne naqariwu ko su boobaa duñ tuddee al nag dañoo ne mooy sosal nit ki loo xam ne neexu ko am na lu ñu tuddee waaw waaw loo xam ne neexu ko wala boog lu munta nekk la nekk la lu munta am na am na lu ñu tuddee al buhtaan wax ne mooy sos sosal nit ki lu rëy rëy njombe wu rëy rëy boo xam ne ki ko sos day jàkkaarloo kam ko sosal wax ko ko yaa def nangam te lépp tege ci ay neen te muy lu réeree loo xam ne bu ko nit ki déggee day gëlëb moom day ba du xamante sax lu muy wax loolu mooy albuhtaan am na lu muy tuddee tamit alxadfu mooy tuumaal nit ki mooy yàlla te amoo ca benn firnde am na lu muy tuddee azuur mooy wax lu amut waaye defe ko ci waxe ko ci anam moo xam ne dañ koy won rafetal ko ba mu niroo dëgg te fekk na dara wetu ca azur am na lu ñu tuddee al suñu borom ne ko waxoo dëgg da ko doon def ngir ñu ne diw ak a tabe te waxoon nañ daal di jël yóbbu ci kaw kon loolu day wone ne lañ doon def lu baax la waaye nag yéen a jël moo wérul si yéen a jaa seetlu yéen a jaa dëgg ba tax kon ñàkk dëggu dana am ci yéene te naa jural borom safaan boobu bu ëllëg yàlla ci yàlla musal ñàkk dëggu dina am ci jëf lee yéene la waaye dana am tamit ci jëf naka lay mën a amee ci jëf mooy dañ koy misaal ci mbokk yi Seydina Yuusuf ya alayhi salaam wa yabkuun bañ ko sànkee dugal ko ca bënn ga dugal ko ca teen ba moom yuusuf alayhi salaam dañoo àndandoo ñoom mbokk yi dem ca seen baay boole ko ki jooy boole ko ki jooy jooy yooyee ngir won ko ne ko dañoo am naqar ndax li seen mbokk ñu sànku ndax li ko till ga ca lañu wax loola jëf la joo xam ne ji ju wut la ndax dañ caa jublu nax ki ñuy waxal ba tey wa jaau ala qamisihi bi damin kadib mbubbam mañ jël taqal ca deret ngir gëmloo baayam ne ko till ko lekk loole tamit jëf ju dëgguwut la ndax till laal du dereti till kon ñàkk dëggu ci jëf am na te sax dañu wax ne moo yées ñàkk dëggu ci wax ndax nit ki mënees na koo nax xaj na benn yoon ci ay wax waaye bu naree ñaar nag mu taxaw waaye jëf moom mënees na cee naxe ay yoon yoon euh, mboolem xeeti cër yi nag cër yi doomu aadama yépp mënees naa wax ne ñàkk dëggu mën na caa bàyyi ko ñàkk dëggu mën na caa bàyyi ko làmmiñ dañ ca gën a miin waaye nag loxo làmmiñ bu waxee lu amul nar na dëgguwut waaye loxo bu bindee lu amut nar na bët mënees na caa junj lu amut hmm, bopp mënees na caa junj lu amut tànk mën naa dox ci lu dëgguwut kon mënees naa wax ne daanaka mboolem cëri doomu aadama yi yépp ñàkk dëggu mën na caa bàyyi ko euh, bokk na ci euh, lii wane ñàkk dëggu ci jëf lu mel ni ki kuy sàkku ndimbal ku yalwaan di woon di di di won nit ñi ne dafa manqué ci ay cër te fekk na demewut noonu te fekk na demewut noonu te loolu mi ngi am loolu luy am bi léeg-léeg ñu gis ko euh, koo xam ne day wone ne nit ku yiw la di ko wone ci ay colom ci ay waxam te fekk na ci kanam nit ñi rek lay mel noonee waaye bu wéetee daal di summi bu ma yore meneen melokaan kon euh, bu ñu xoolee daal fii ñàkk dëggu di bàyyi koo mënees naa wax ne ay xeet la mën naa bàyyi ci yéene mën naa bàyyi ci jëf mën naa bàyyi koo ci làmmiñ mën naa bàyyi koo ci yeneen xeeti cër yi doomu aadama am yëpp suñu xeet suñu seetee nag xeeti ñàkk dëkku xeetu nar suñ bàyyee xel fa mu jëm euh, lu bari la fii nar bi jëm fi ñàkk dëkku gi jëm euh, ay xeet yu bari la mënees naa sosal suñu borom mënees naa sosal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nit ki mën naa sosal sax boppam mën naa ñàkk dëkku diggante ma boppam nit ki mën naa sosal ay moroomi nitam mën naa ñàkk dëggu digganteem ak ay moroomi nitam ba ca yées nag mooy sosal suñu borom moo taxoon jinne yi doon wax ne ñoom loolu mënta dugg ci seen bopp ñoom mënuñoo nangu mbindeef mënuñoo nangu nit wala jinne di sosal yàlla wa inna zananna an lan taqula al insu jinnu ala allahi rëyaayam rëyaay bu mu sosal yàlla moo tax ñoom loolu mënut a dugg ci seen bopp yaakaar nañ ne sañu ko ñemewu ko nit sañu ko ñemewu ko suñ borom wax na ne undur kayfa yaftaruuna ala allahi alkadiba wa kafa bihi ithman mubina doy na sëkk bàkkaar sosal yàlla ndax day day laal jëmmi diine ci boppam kii sosal yàlla day eh, mel ni moom dafa bëgg a borom ci ay sañ-sañam fa man adlamu mimman a mën a tooñ boppam kii sosal yàlla wa an taqulu ala allahi ma la taalamun bokk ci li suñu borom kenn laa taftaru ala allahi fa yasxatakum bi adab bu leen di sosal yàlla ndax loolu kat mën naa tax mu naka la ñuy sosale yàlla ay xeet yu bari la moom tamit ci anam yu bari lañ ko mën a sosale bokk na ca euh, waxal yàlla lu mu waxut loola moo ci wala boog nit ki fekk lu yàlla wax mu mu mu nettilee ko mu bëgg dëkk nam ko waxee wëlbati wax yàlla dolli ca lu ko neex wala mu wàññi ca lu ko neex ba nga xam ne loolu day tax maanaam day soppeeku. loolu nag mooy li yahudi daan def yuharrifuuna al-kalima an mawaadi'ihi euh, wala boog jël wax yàlla firee ci anam goo xam ne laalewut ak mi wax ja dara te boole ko koog jubbu nag loolu tamit bokk na ci sosal yàlla bokk na ci sosal yàlla di àtte ci diine te tegewul ci xam-xam di àtte ci diine te tegewul ci xam-xam. di araamal lu yàlla daganal wala di daganal lu yàlla araamal loolu lépp ci sosal yàlla la ko lima tasifu alsinatukum alkadiba hada xalaalun wa hada xaraam litaftaru ala allahi alkadiba yonente bi salallahu alayhi wa sallam mas naa wax ne jamonoom ay at a ñëw yoo xam ay at yu mën a wore ay at yu mën a wore yoo xam ku dul wax dëgg lu mu wax ñu gëm ko fekk ku dëggu lu mu wax ñu weddi fekk ku mën a wor ñu wóolu ko fekk ku wóor ñu ne ab warkat la jamono ngi ñëw joo xam ne su boobaa daañu fekk ku ñàkk solo ku ñàkk solo muy wax ci loo xam ne dafa soxal ñëpp rawatin diine ci Euh, bokk na ci sosal yàlla woote ak yonent woote ak yonent te loola bokk na ci yi gën a fes sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne buñ demee euh, nee na saa du taxaw saa mukk ndare mbooloo mu bari dañ daan jóg kenn ku ci nekk di wax na yàllaa ko yónni kenn ku ci nekk di wax di wax yàllaa ko yónni te man maay yonent bi mujj yonent bi ñoo sama gën bu suñ borom waxee ne maa kaana muhammadun aba ahadin min rijaalikum walakin rasulallahi wa xaatiman nabiyyiin yonent bi waxal boppam ne maa mujj ci yonent yi ñu toog ba mu yàgg jëm wax bu leer naññ ne yàllaa ko yónni loolee day mel ni nag uh, wow bët mënu koo weesu uh, ay war tamit mënu koo weesu bokk na ci sosal yàlla di nettali ne nettali ay gént yoo xam ne wérut gént naa gis nangam gént naa gis nangam ndax gént bokk na ci màndarga yuy wane ne jëmm ji bu baax la nit bu sell la gént yoo xam ne gént yu baax la yoo xam ne day dëppoog la am loolu màndargam sell la léegi nag nit ki nga xam ne day nettali ay gént yoo xam ne wérut gis naa nangam nangam dana am nangam dana am te fekk te wane na ko gént te dara amu ca loolu bokk na ci sosal yàlla yonent bi sallallahu na wax ne bokk na ci luur yi gën a mag sos yi gën a rëy nit ki di wax ne gis na lu mu fira an yuriya ma lam bokk na ci nar yi gën a rëy sosal yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom tamit li tax mu doy waar mooy day laal diine day laal diine ndax ginnaaw waxi waxam ak jëfam leen ci nekk dañ cay tënku àtte la euh, kon waxal ko lu bokkut loolee day jeexital ci diine ji moom nag waxaloon na boppam ne sosal ma tolloowut ak sosal kenn ci kaw suuf ndax képp koo xam ne kii sosal nga ma te yaa ko tey bay boo nga jàpp sa sa sa sa kër bay boo nga xam ne am nga barab ca këru safar nga yàlla ci yàlla euh, kon sosal yonente bi sallallahu alayhi wasallam moom tamit mën naa am ci ànd yu bari wax ne yonente bi moo wax tàngam te fekk wérut te mu leer la ne wérut wala nga jël ay waxam soppi maanaama waxe ko ci geneen anam te fekk ne yaa walla sax ngay nit ki di wax ay xeeti matadi di ko jëme ci jëmm ju sell joojale te fekk na moo ko tey loola sosal ko walla mu bëgg koo yëkkati ba tax mu di ko jox ay melo yoo xam ne yellu ci moom ndax xaj na cëru suñu borom la loolee tamit sosal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam naka noonu di wax ne gis naa ko ci gént mu ne ma nangam mu ne ma nangam ne ma nangam te fekk na wérut loolee tamit bokk na ci sosal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci xeeti sos yi bu ñu xoolee ci ki mu jëm ci moom jëm ji sos ci boppam mën naa sosal boppam ñàkk dëgg bi mën na koo jëmee ci jëmmam dafa am na ay sabab yu koy waral ñaare nit ki di di di sosal boppam nit dana gis ci boppam dana yëg ci boppam ay xeeti matadi yoo xam ne bëggut mu fés bëggut ñu xam ko mu di ko muure di ko nëbbee wax lu amut di wax lu amut ngir nëbbe ko ay ayibaan ay ayibam suturaale ko boppam loolu dina am léeg-léeg day mel ni da koy naxe boppam ndax moom xam na xam na xam na li ko dal xam na li mu àndal léeg-léeg day mel ni nit ki da ciy dem ba àgg ci réere boppam day mel nag mooy léeg-léeg nit ki dana ca àgg foo xam ne ñami waxal daañu ko ko nangul am naa nangam wala mel naa nangam ñu nangul ko loola moom mu wëlbati ko nag di dund ñoom loola te fekk na wóor na ko ne nekk loola lekk nekkul lu wér loolu nag day xaw a niroog li Cheikh Khadim di wax naan wa man yadaa yaqinahu liman wara yadunnuhu fihi fa umrun dukara yow nga xam sa bopp am lu la leer ci sa dayoo nit ñi nag ñi la umbule yaakaar ne àgg nga fi àgg nga fi ba ñu teg la foofu yow nga bàyyi na la wóor ànd ak ñoom ca lañu yaakaar ci yow nee na Seex Xaadim nee na loola boroom xel bu naqaree koy def bu wéradi bu am wéradi xel ba noppi boole ca gëmmentu wala sax kuy nelaw te kuy gëmmentu daanaka kuy gëmmentu rek wala kuy nelaw kenn du sukkandiku ci ay waxam bu ca boolee nag xel mën a am teg nee na kii bàyyi li ko wóor di wéy ci li nit ñi di jotte ci moom nee na dafa boole ñaari nag nit ki eh, eh, du nangu njuumte du nangu njuumte maanaam nga xam ne day wane ne man kenn du ma jàngal nu may defee nangam xam naa li may def xam naa li may wax donte ne juum na juum te lu wér du ko nangu ndax lan da koy nëbbee da koy nëbbee sikkam yooyu la da koy nëbbee sikkam yooyu léeg-léeg sax mu jëm ci dundinu àdduna nit ki di dundi dundin woo xam ne leer na ko ne loolee du am dayoo xeetu mbubb mu xew mu ne mu sol ko war waay bu yees bu nekk dina ko jéem a am donte ne ay naxaate ci la koy amee donte ne tamit ci ay bor la ko jëlee yoo xam ne fas ko yéene fay waaye na wone na wone na won na wone boppam ci ñi koy gis ne moom nii kat fii la toll nii la mel nga xam ne dund bu bu diis a diis lay doon ci moom waaye ginnaaw fu mu dem rek ñu ràññee ko lu mu ca lu mu ca góobee rek jarale ko loolee ba tey ci ñàkk dëggu la diggante nit ki ak boppam ndax ma nga yóbbee boppam fit na joo xam ne mënoon naa suñu ñëwee nag ci nit ki di sosal ay morom nitam loola moom lu yaatu suñ xoolee la koy waral euh, mënees naa wax ne mënees na ko dëng ci ñett li tax nit ki di di sos mënees naa wax ne daal nga xeeti sos yëpp mën naa ko ci biir nit ki dana sos ngir lan ngir njariñ lu mu bëgg caa jot te yaakaar na ne mënu koo am ci lu dul ñàkk a dëgg koo am ci lu dul wax lu amut wala boog lu mu am ba noppi bëgg koo sàmm di ko sàmmee wax lool wala lor ju mu bëgg a mucc ju mu ragal te yaakaar na ne amut mu ca mën a muccee lu dul wax loolut kon ragal lor dana tax nit ki wax loolut bëgg njëriñ dana tax lu mu amut wax lu amut bëgg fayu tamit fayu dana tax nit ki wax lu ak yeneen ak yeneen su ko defee nag euh, nit ki euh, njariñ yi muy wut ba tax mu jaral ko wax loolu bokk na ca daraja bëgg daraja dana tax nit ki di wax lu amut wala di def lu wérut bëgg daraja dana tax nit ki àbb mbubbum jàmbur maanaam sol mbubbum nitub diine wane ne moom mii kat nitub diine la ndax bëgg ñu jox ko ca cër bëgg daraja dana tax nit ki sol mbubbum borom xam-xam ngir bëgg ñu jox ko ci cër donte bi loolu bëgg dara dana ndax nit ki fekk liggéey boo xam ne maanaam barabu liggéeykaay boo xam ne bu am maanaa la mu wane ne fa lay liggéeyee wala boog sax moom moo ko jiite ngir bëgg ñu jox ko ca cër bëgg daraja dana tax nit ki di woote sax ab sëriñ wane ne moom ab sëriñ la ab sëriñ la boo xam ne Euh, nitu yàlla la ngir bëgg ñu jox ko ci cër euh, mën naa àgg sax ci nit ki di woote ak wilaaya wane ne moom day xam lu bari loo xam ne nit ci gese gese xamuñ ko naa àgg ci muy woote wala muy wane ak dëddu ya dëddu dëddu àdduna ci kaw te fekk ne da koy gëlëmale rek ñi nga xam ne ñoo koy gis waaye nekkul lu wér ci moom daraja mën naa yóbbu nit ki ci muy boole boppam ci askan wi mu bokkut di sama baay te fekk na wérut di sama waajur bu jigéen te fekk na wérut nga xam ne da leen di mottali koo rek bëgg daraja dana ko yóbbee nit ñaar euh, bëgg daraja ci muy wane ay jaar-jaar yu yoo xam ne wax ne jaar na ca te fekk na dara amut dem naa barab sàngam gis naa nangam am naa nangam xam naa nangam diw sàngam xam naa ko sama wëlëre maa koy defal nangam maa ko féete fii te fekk na yooyu yëpp euh, da koy mott ko rek ngir bëgg ñu ko ci cër nit ki dana wax lu amut ngir di ko wute alal njariñ loolu mën naa doon alal mën naa doon alal bëgg ku la lebal tax nga wax lu amut bëgg ndimbal tax nga wax lu amut euh, gis ku am soxla su mu war a lijjanti ci barab sàngam nga ne ko xam naa ku fa nekk koo xam ne soo ma joxee nangam man naa dem ca moom mu fajal la sa soxla soosu la te fekk ne loola wérut nga xam ne nda koy def rek ngir am ngir ngir am lu mu mu jëlee ci jëmu jëli bëgg alal dana tax ba nit ñi di tuddoo euh, mbootaay sàngam wala daara wala jàkka di wër ci turu jàkka wala daara wala mbootaay di ca dajale alal joo xam ne day wane ne ci barab yooyu la jëm te fekk na ci jibay boppam la ko jëme nga xam ne kon ma ngay wax lu amut te fekk na da koy wuti alal euh, am na ñoo xam ne nag ñaare tolluwaay yu doy waar yi saa tiis amee ñoom yu mel noonu ci lañ gën a euh, mën a ay pexe ba dund ci ndax euh, jekku nit ñi ci tolluwaay yooyu ñaare di yokk bëgg alal dana tax mooy tax ba jaaykat bi di waat di wax loo xam ne wóor na ko ne amut ngir bëgg a jaay ngir bëgg a jaay euh, nangam laa ko jëndee li ma ciy am bariwut nangam ji rek laa ciy am te fekk ne defut noonu léeg-léeg ñu boole ko ak di waat te loolu suñu borom tëggu nañu koy def inna alladina yashtaruuna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ba aya ba jeex bokk na ca lam leen tëggoo soo lëgee suñu borom du wax ak ñoom lu leen neex du leen xool bëtub yërmande te dana leen buggal buggal mu metti ñi nga xam ne dañuy waat waat lu loo xam ne dara wéru ca di ko wuti euh, bokk na ci ko ci koo xam ne day wane ne moom ab fajkat la dem ubbi fajukaayam nit ñi di ñëw mu leen di bindal mu leen di seet di leen di bindal ay garab yu ñu war a te fekk nag <clears throat> liggéey boobee bu liggéey ci moo ko ca yóbbu te loolu ñu koy gis ci barab yu bari euh, daañu gis tamit ko gis ci liggéey yu bari koo xam ne sax ci liggéeyam la nekk ci métier la nekk. tabaxkat boo xam ne bii yow da nga koo jox sa sa kër ngir mu tabaxal mu ne la nangam moo koy tabax jox la lu ëpp fuuf la nga xam ne moo ca waroon a def te loola bëggut lu dul euh, la ca des moom mu dugal ko ci jibaam jaar ci sa kaw jàll dana am ci tabaxkat yi du ñëpp dana am ci euh, menuisier yi mën naa am sax ci yeneen xeeti métier yu baree bari yu dul yooyu wala lu mel ni ki ñawkat boo xam ne aw xew dafa jub nga jox ko sa mbubb moo bëgg mu ñawal la moo la ne mën naa ko te bis sàngam boo dikkee ma danga ci jot te wóor na ko ne mën ko tax li mu gàddu ëpp na ko doole waaye ku ñëw rek mu jël ndax bëggul dërëm bi rëccu loolee dañ koy def lu baree bari euh, rawatina ci jamonoy xew euh, léeg-léeg nit ki dana bëgg alal ba tax muy won borom alal yi wala borom daraja yi di won di leen won ak cofeel te fekk ne nekkut lu wér ci moom lañu lañu yor rek loola moo koy teg nit dana euh, wax lu amut di ko a njariñ njariñ loola léeg-léeg mu mu mu mu muy lan wut ak nit ñi bëgg ko wala mu euh, ko ba wax lu amut di ngoro euh, jàkkaarloo ki ngay ngoro di ko wax ay wax yoo xam ne wóor na la ne dara amu ca ngir rek di ko gëm loo bopp lu mel ne kii yi ñu waxoon léegi am naa nangam dem naa barab sàngam xam naa diw fii laay liggéeyee nangam ak i nangam ngir bëgg a toj ab xolam maanaam loola kon bokk na ci sab sab bii tax nit ki di wax loolu bëgg ku ko bëgg di wutuk cofe euh, bëgg lu bëgg lu neex nit ñaare dana tax nit ki wax loolu sa xarit wala sa mbokk nga di ko tagg ba far xaabaabal ca tagg ya di ko wax loo xam ne wóor na la ne wérut loola euh, xañ na wute wuñ alal léeg-léeg dañ koy bëgg a serale ki ñuy wax léeg-léeg nit ki dana wax lu te dara waralu ko lu dul bëgg rek xoromal bëgg ñi muy waxal euh, reetaan bëgg ñu bëgg ñoom itam nga xam ne euh, loola aada aada la ci moom bëgg bëgg reetaanloo nit ñi tax ngay wax doomut te loola euh, diine da koo ŋaañe bu baax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ne ki nga xam ne day waxtaanal nit ñi di wax lu amut bëgg ñu ree ba tax mu wax leen lu amut nee na kookee day musiba ñeel na ko toskare ñeel na ko mbugal ñeel na ko sawara ñeel na ko yàlla ci yàlla kon nekkul lu woyof lu ma tabaay xel la euh, te bokk na ci la muy jur moom euh, waxtaan yu mel noonu nga xam ne dañ koy def rek ngir di ko bégale nit ñi euh, bokk na ci la muy jur day day jàngale wax lu amut da koy woyofal tamit ci kanam ñi koy dégg ba duutuñ ko daanaka bàyyi xel nit ki dana bëgg lu neex doomam ba tax mu wax ko amut di ko nax loolu nag daañ ko seetlu lu bari ci ci ci gone yi ñaan dana faral di am ci ñoom dañ def lu ñu war sa def ba noppi boo leen laajee ñu bañ ku leen fitnaal tax ñu wax la leen lu bokkut ak laal ki dana wax lu amut ngir ne dafa am lu ay wareef bari yu gàll yu yu yu gàllu ci ndoddam te mënu ko yem wala boobu bëggu ko wàcce wut ak wareefam yooyu nag muy lay nag ay lay yoo xam ne wérut ngir wane ne lii moo tax lii moo dox diggante mag mu def waru garam yooyu nit ki dana bëgg ku ko tagg ba tax muy wax lu amut nit ki dana fiir fiir dana iñaan ba tax mu waxal nit ki lu amut xañ na nattangoo nawle boo xam ne da ngeen a bokk liggéey yaa fa jiitu mu ñëw rek moom daal di yëg ca kaw loole mën naa yëgal ay xol ñi nga xam ne seen ngëm dëgërul mën naa tax ba ñuy def ay pexe ngir loolee dellu gannaaw wala mu bañ am euh, fiir ci diggante ay wuccu fiir ci diggante ay euh, ñu bokk liggéey ñaare mën naa andi wax lu amut fayu nit ki sosal la waxal la lu amut lu la metti yawit nga ne danaa ko waxal lu amut loolee nit dana koy faral di def waaye lu ñu ŋàññi la ci diine idi tasaabubu maa takaadumi min aqbaxil xisaali ka tadaarubi ni ko Cheikh Xadim waxe radiallahu waxante lu ñaaw sosalante dóorante xeex nee na yooyu ci jikko yi yées ci jikko yi la bokk euh, bokk na ci lii tax nit ki di euh, wax lu amut ñaare euh, bëgg a gotti ab noonu bëgg a suufeel noonu dana tax nit ki sosal ko lu wérut ñaawteef wala loo xam ne eh, dara amu ca ko ko ngir lan suufeele ko noonu boobale nit ki tamit dana wax lu amut eh, ci buñ soxlaa mu seede eh, ñu jënd ko soo demee waxal nangam neel nangam moo am wala neel nangam amul te fekk ne moom mi koy wax wóor na ko ne la muy wax bokkut ak na mbir ma demee mooy seede ay neen te loolu yonent bi sallallahu alayhi tëkku na ci tëkku bu metti ndax waxoon na ne bakkaar yi gën a rëy ci bakkaar yi bokkaale ci jiitu dogoog ay waajur ba mu ko waxee ba noppi da caa dañoo wax ne ki ko nett dafa wax ne bi muy wax loolu dafa fekkoon mu sóonu waaye ba mu waxee ñaar yooyu dafa jóg toog daal ne ma ne ak seede ay neen ma ne ak wax ay neen wax lu amut seede lu amut di ko wax di ko baabu di ko baabu ba mbooloo mi toogoon ci jataay bi ñoom dañoo mujj sax tiit ndax euh, baabu gi koy baabu euh, ba bëggoon nañ euh, ba ne ba àgg ci nañ ay waay teemu woon a noppi ndax ñoom fi nekk nii yëf yi àgg nañ ko xam ne ànduñu seen sab kon seede ay neen moo xam ci àttekaay yàlla wala fu man di doon ngir xaj nit ki ay àqam bokk na ci xeeti nar yi nga xam ne dañ koy ngàññi te lu mat léeg-léeg nit ki dana wax lu amut te fekk ne benn ci sabab yooyu taxut benn ci sabab benn sabab bu ñu mën a wax ne lii moo tax mu mu def ko mu wax ko du njariñ lu muy xëcc du lor ju muy jañ du faju du leneen du leneen du alal du dara foofa nag dañuy wax ne la koy waral mooy ak wéradi wax lu amut man naa nekk ak wéradi ci nit ki ndax nit ki mën na koo tàmm ba mujj far bu koy def du ko yëg bu koy wax buy wax loolu du ko yëg te du doon dara ci moom loolee nag wéradi la boo xam ne gi euh, faj ko du yomb